parce que suba daa am procès buy am Ousmane Sonko Adji Sarr ginnaaw bi waroon am semaine passée ñu reporté ko d'une semaine euh, situation boobu noonu Sénégal dund à chaque fois qu'un opposant qu'un homme politique est convoqué ndax sonn leen ci ndax warul jeex. bon disons que ndax sonn nañu ci ñun mais pas ñun mais le Sénégal vraiment mérité wu ko euh, on pense également que les Sénégalais euh, éventuellement normalement pour ñu am xel bu dal ak yëpp mooy que no waroon nañu mën a am benn. des une justice qui est là pour tout le monde aussi bien des politiques que des non politiques pour que su dara amee y a des cas qui se passent tous les jours au niveau de de de, de la justice mm-hmm. lu am mooy c'est que suñu pré ki nga wax ne suñu à chaque fois ñu woo benn homme politique non c'est pas benn homme politique ce cas là c'est un cas particulier boo xam ne le monsieur s'appelle Ousmane Sonko à chaque fois que ñu woo ko foofu mm-hmm. affaire yi xaw a xaw a xaw a xaw a xaw ni mu demee ah, mais sama nañ ci responsabilité yéen aussi parce que euh, yu mel ni souvent affaire de judiciaire la mais dañ koy politiser de trop euh, yéen dans votre euh, camp votre côté ngeen koy apporter seen soutien maanaam di ko dëgëral ci position bi bi mu nekk aussi est-ce loolu amul lu mu ciy def. waaw xam nga ce cas dafa xaw a complexe parce que judiciarisation bu am ci. justice mhm. euh, bu justice di def du moins du moins bu l'exécutif di def chez les politiques loolu moo àndi li donc c'est pas un cas boo xam ni euh, ce sont ces procès là ou bien yi jëm ci affaire cas bi ñu war a juger demain wala le procès bu ko jiitu mooy bu Mame Mbaye Niang bi mhm. loolu àndiwu ko le problème bu ñu remarqué mooy que la justice ou du moins les dossiers politiques ont été judiciaires, de, euh, se sont présentés au niveau de la justice ou bien la justice s'y est mêlée un peu dans le politique. et loolu moo fi am. Ah. loolu la nit ñi xam. D'accord.